yi mais rawatina Balla Gaye. lu euh, dem ba jamono boo xamante ne su Balla Gaye ñëwatul ci écurie bi sax pour moom keneen nekkatu fi moo waral ma daan koo xam ne ko même bu fi Balla gay déglu liggéeyal ci xale yi ndax écurie day am relais mais moom cofeel gu mu amoon ci Balla Gaye ndax day wax xale yi xale yi ñëwatuñu gisatuma leen moo xam ne Balla Gaye la moo tax ma ne euh, Youssou Ndour ak Moussé ñooñu doomi deret lañu mais Balla Gaye doomu xare doomu xol la doomu xol la kooku noonu rek la war a demee xam ki ànd yow succès amul xaalis amul tàccu amul di la topp cinq heures mu ñëw entraînement te heure boobu yow sa papa ma ko këram toog di la taxaw taxaw boo xamante ni say waajur la waroon moom mu di ko taxaw bëgg nga tekki kooku boo dee ba tekki noo ko defal dangaa euh, delloo fàttali ci ndaa li rek ñi ngi gërëm Balla Gaye mais ni mu def rek la war a def ndax dañ ne àll mëttañee mat ñu ne ankay ndax àll bi ko amul kon loo def ci lu baax dañ laa war a gërëm Balla Gaye 2 taxawaay bi mu taxaw rek la war a taxaw ndax Balla Gaye bàyyi ko benn yoon bu jëlee avance mi ngeeg moom di ko taxaw di ko yee taxawee nii demee nii bu bisu làmb ja da koy ëmb andi ko conseil ko toog ak moom ci chaise bi léeg-léeg mu ne ko dalal di la pousser pour nga am ndam kooku bu nee ba yàlla weddi non lu mu defal Double Less non war na ko defal euh, Balla Gaye ndax moom bi muy topp a Gaye parce que Double Less ci combat mu ji la ñëw mais ba combat ak Saalum Saalum gisoo Balla Gaye combat ak maam góor gisoo gisoo Double Less waaw moom nag mu taxaw ko ci njëkk a bëree premier combat ba ci ñoom Papa ba bi mu dégg daal di Balla Gaye di ko préparé poussé ko pour mu pour doon champion ndax Double Less moo jur mais bi mu nee ba xam ne Balla war naa doon champion ci la Double Less ñëw Balla Gaye nag xelam a xalaata mos cee jóg nii mu taxawee dafa def rek li mu a mu war a def te xam naa ne Baye Ma Ndiaye Elton Lesgue